jàmm li ñuy ñaan fii ci Sénégal mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu leen ziar contentement ak mbégte la ñuy am jàkkaar jàkkaarloog yéen chaque jour nuñ koy defee ci suñu émission Mara chaque jour nag képp koo xamante ne ñu ngi ko fiy dalal lenn képp moo ci tax a jóg képp koo xamante ne da nekk ci ay tolof képp koo xamante ne da nekk ci guddi bu bët setagul bu ko defee rek ki nga xamante ne mooy suñu gan lim lay andil nga mën cee jariñoo kenn du ne guléet

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نيو نيو مبوكي أدنا بنيو السنغال وعي مبوكي أدنا لنيو وخ كم أفير إنترنت لا دي نيو سنغال دي نيو كلفة دينة يتريومي سنو سرين شيخ محمد الماهي نياس تمدنا باي ak euh, imaam akbar Cheikh am Tidiane Ali sise ak suñu wasila Cheikh Mouhamadul Mahi Ali sise mm-hmm. ak euh, ñu ngi ziyaara Touba Cheikh Mouhamadul Muntaka mm-hmm. Mbacké yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan ak mm-hmm. sëriñ Aboubacar Mansour ak mbooleem xalifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal euh, ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla yàlla dolli leen barke def ci réew mi jàmm defal ko mbooleem jullit ñi waaw Aïcha nga defon fi vidéo bo xamantene ma sha allah internet yi ñëpp ci amone contentement ndax gis ñeen jàngale gi nga xamantene ne defoon nga ko ci lan nga ci mëna wax. wa alhamdulilah loolu rek la parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne khayrukum man taallama alquran wa allama ki gën ci nit ñi moy ki jàng alquran ba pare jàngale ko jàngale bi nak moy fexe ba nit ñi jëriñu ci bayna Niass radiyallahu anhu bi mu demee Égypte. du wax ak benn borom xam-xam ci Égypte. fekk kooku fekk ñu waxoon ne kooku loo ko laaj mu tontu ko. bàyyi ne ko mal ilma lan mooy xam-xam. waa ji commencé di indi ay commentaires yaatu. bàyyi ne ko al ilmu maa yanfauka wa yanfau nnaas xam-xam mooy bi ngay jëriñoo ba pare te mën koo jox nit ñi ñu jëriñoo ko. kon liñ ci jublu mooy nit ñi mën a ñu jëriñu ba pare nit ñi tam mën ma dégg nga mën cee jëriñu. te alquran moom njëriñ kese la. macha allah Aïcha chaque jour ah, tey lan nga ñu andil tey lan nga xamante ne lii boo ko andilee lépp ci wàllu alxuraanul karim la baaxee ko askan wi ku ci nekk mën cee jariñoo ndaxte am na ñu lay seetaan ñoo xamante ne jamono gi soxla nañ ko waaye itam am na ñu lay seetaan ñoo xamante ne jamono gi ah, sëriñ su bari yàgg nañ leen dóor lekk nañ seen xaalis xamuñu fan lañ war a mën a dem tey nga andi lu am solo muy ayatul kursi balaa ñu cee gën a xuus lan mooy ayatul kursi waaw euh, alhamdulilah nga xam-xam ba ko war a gëstu jaar ci jaaruwaay yi. Mm-hmm. alxuraan dafa wax ne waatul buyu tamit abwaabiha mm-hmm. su ngeen dugg ci néeg walla ci kër na ngeen jaar ci bunt bi bu leen jaar ci palanteer bi dégg nga ginnaaw bi ñu wëree mm-hmm. euh, tukki euh, gëstu bu baax a baax. ci li nga xam ne mooy xam-xam rawatina baatinu alxuraan parce que alxuraan yëpp euh, baatin la. waxoon naa ci émission bële jaar nañ fu bëri. dem nañ ba. ba Malaysia. macha allah dégg nga kii photo yaa ngi nii. yii yëpp dégg nga Malaysia lañ ko defee. man maa nekk nii gis nga ko. dëgg la macha allah lépp ci sàkku xam-xam dégg nga tukki yi nga xam ci sàkku xam-xam. dégg nga lañ ko defee. ba gëstu ci loo xam duñ wax ne xam-xam duñ wax ne doyna parce que xam-xam du doy. dëgg la waaw. qul lillazi yaddaci bil ilmi maarifatan. in alimta ashyaun faqad gaaba an anka ashyaa arab wax ne waxal ne lépp. mu ne déedéet xamoo lépp. Mhm. da ngay xam lii rek am lu la réer. ayatal yi nag dafa nekk aaya boo xam ne dañ ko tuddee al mhm. yi kursi. aaya kursi kursi ci arab bu ñu koy tekki mooy chaise. chaise maanaam mooy gàngunaayu yàlla bi. Mhm. dañu wax ne moo tax yàlla wax ci biir ayatal kursi wasi ak kursi yu samawaati wal ard borom xam-xam bi dañu wax ne bu ñu jëloon asamaan juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar te diggante asamaan ak asamaan bu nekk dañu wax ne doxab juróomi téeméeri at la. Mhm. suñu jë ndëxëñoon asamaan juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar sànni ko ci kursi yu. day mel ni mhm. benn jaaro boo xam ne da nga dem ci désert. dégg nga mhm. sànni ko fa noonu lay mel. kon nga xam ne kon kursi yi lu am doole la. te muy aaye boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne. ku ko jàng benn yoon gannaaw julli. soo dee aljanna nga jëm. macha allah kon xam nga loolu foor na. Mhm. loo xam ne boo ko jàngee benn yoon rek gannaaw julli boo dee aljanna nga jëm. kon mhm. nit ñi lu mu yàgg yàgg ci àddina dañuy dee te ku dee bëgg nga dem aljanna ayatul kursi dafa nekk loo xam ne lu foor la. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne Ahmad ak Muslim ak Abu Daawud ak Hakim ci kilifa bu ñuy wax imaam Harawi génne ko ci téereem bi nga xam ne ay ngëneel la ciy indi ci alquran. wax na ne ku ñuy wax ubay ibnu kaabin saaba yonente bi la nga jibril daan na wax yonente bi muy dem ci moom di tari alxuraan kooku di ko déglu xam nga kooku ponkal la mm-hmm. yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko laaj ne ko yaa abal munzir a tadri ayu ayatin min kitaabillahi azam yow yow abal munzir ndax xam nga aaya ban aaye moo gën a for ci alxuraan mm-hmm. mu ne ko allahu wa rasuluhu alam yàllaa kub yonentam rek a ko xam man xaw ma ko yonente bi posé waat ko question bi ne ko a tadri ndax xam nga ban aaya moo gën a ci téere yàlla bi mu ne ko allah wa rasulu alam yàlla ak yonentu moo ko xam mu posé ko ko troisième fois dégg nga mu ne ko xëj na ah est-ce que du ayatal kursi mhm. yonent bi kontaan door ko xët ko ci dënn door ko ci dënn ne ko la yahinkal ilmu yaa abal munzir yàlla na la xam-xam yomb yàlla na xam-xam barke ci yow yaa abal munzir mu koy mhm. won ne ko exactement ayatul kursi mooy aaya bi gën ci biir alxuraan يننتب صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة وفيها آية سيد آية القرآن موي آية الكرسي يننتب صلى الله عليه وسلم نينا لو نك بو امون سيمبول كون باخ سورة البقرة موي سار بي نيك كامل بي الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه نينا موي سيمبول القرآن mune ne symbole alquran bobu nak ci bir am na bo xamne moy sangi aya yeb moy lan moy ayatul kursi kon ayatul kursi dañ koy tuddé ayatul fathi aya ubi ku koy jang mhm. yalla dana la ubbi dañ ko tuddé ayatul baraka ku koy jang da nga am barki te sama mam da na wax ni am khalis ak am barke du ben mhm. nit dana am khalis te amul barke deug la nit dana am dana am daraja pouvoir te amul barke mhm. deug nga barke bàyyi ñes nee du jëm waye lu mu nekk ñu xam mu ngi mu ne barke du jëm waaye lu mu newul ñu xam ne newu ci barke mooy lépp loo lépp loo sóobu rek yàlla ànd ak yow yàlla nañu ko yàlla defal mu ne ayatul nama la yokkute ayatul muqaddasa aya sell la ayatul tawxid aya tawxid la wéetal yàlla parce que ayatul kursi mbooleem kañ ak bàkk yàlla dafa nekk ci biir allahu la ilaha illa huwa qayyum di tagg yàlla naan ko laa taaxuzu sinatu wala nawm yow yaay ki nga xam ne doo gémmantu doo nelaw dégg nga man zal lazi indahu illa bi izni kenn mënta ràmm ku dul yow yaalamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum yaa xam li jiitu ak li ak li na ci kanamu nit ñi ak li na ci seen gannaaw dem ba naan ko walaa yaudu xifzuhuma wal aliyyil azim wattu asamaan ak suuf juróom-ñaar li ci ne yow yàlla yow rek yow yaa ko mun a wattu kon nga gis ne ayatul kursi yi aaya bu am doole la léegi nag euh, tur yàlla bi am gën a am doole ci tur yàlla yi muy xayul qayyum mhm. dafa nekk ci biir te tur yàlla yi dañ leen xaaj ci ñaari bolok mooy ku lu ñu wax kulliyaat ak juziyaat dafa am tur yàlla yi kulliyaat yi mooy tour yi nga xam ne boo ko jàppee daf lay àggale ci yàlla direct xayul qayyum ayatu kursi bi ci la bokk boo ko toppee daf lay yóbbu ba ci yàlla direct te nit ki boo àggee ci yàlla lépp loo bëgg yàlla da koy bëgg lépp loo bañ yàlla bañ ko boo kontaanee yàlla kontaan boo meree yàlla kontaan yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan am problème te te yenent bi du am problème waaye su daan dem ba jaaxle mel ni ku jaaxle dañ wax ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam isa xazza bihi amrun qaala yaa xayu yaa qayum bi rahmatika astaghis yonent bi bu daan dem ba mel ni ku jaaxle xayul qayum moom lay woo kon ayatul kursi mu ngi noonu 170 araf la 170 arafam boo ko compté muy alif ba ta ayatul kursi nga tàmbali a la a hu dégg nga laa ilaha di ko di ko def noonu araf yi benn benn 170 araf la baat yi mooy kalima yi li arab di wax kalima de nga moy moy soko ko compté dafa lay jox 50 mo kon ayatul kursi mu ngi noonu dafa am doole yenenbi sallallahu alayhi wasallam joxe na ci ben ñaan moy kuñ tak xala wala nga tok sa yaram di diis rek mëno dem liggéey kuñ tak xala moy en général góor ñi góor boo xam ne dafa toog mënatul jabaram dara te mënon na uh-huh. wala ñu jox ko jabaram mënu ko jël uh-huh. yenenbi sallallahu alayhi wasallam daa bari si réew mi nag de waaw bo démé ci téré bu ñuy wax al ilaaj denga al al ilaajul nabawi bil was sunna arab saudi lañ ko muulee denga téré bo bo némé ci bir yonent bi sallam mu ngi ci wax ne bo utee juróom-ñaar fukki xobu sidem juróom-ñaar fukki xobu sidem nga nga nga dëbb ko sàjj ko tuuti mm-hmm. nga jang ci 70 ayatul kursi def ci ndox nga sango ko bu soobee yalla bu fekkonte ne dañuy tak xala denga xala bobu dina bayi boromam macha allah kon légui tam ayatul kursi bi nak bima mm-hmm. bima indi ni balang koy liggéey mm-hmm dafa am tarbiya ndaxte jigéen balaa nga ngoy jël yóbbu ko sa kër ding ko mhm. ding ko ding ko ngoro mhm. wala wa dang koy ngoro ba mhm. pare nga cyan ko kon ayatul kursi amna tur yalla bo gis amna luy wax nikah moy ngoro da ngay ngoro tur bi ba tur bi nangul la nga doga nak joxe cyan bi cyan bi moy sarax bi nga genné sarax parce que yene sallallahu alayhi Wasallam, waxon na ne daawu mardakum bis sadaqati sen maladi na ngeen len sarax sarax sarax dafa nekk loo xam ne lu am doole la mm-hmm. waaw wa sadaqatu tutfiul xatiya kama tutfiul maa un naar yenente bi nee na sarax dafay fay bàkkaar te nit ñi dara may dara taxul ñu am problème lu dul bàkkaar te yeneen tamit nee na waxtu boo génnee sarax rek am na say bàkkaar yu ñu mais dogguma la euh, Cheikh Ismaïla mais am na ñu xam naa am na yenn sëriñ yoo xam dañu naan sarax baaxul dafa xaraam. nga hmm? génnee sarax joxe ko dafa xaraam. non sarx yonente bi moo ko dégloo li ma la wax nii hadis yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam yonente bi moo ne wa sadaqatu tutfiul xatiya kama tutfiul maa un naar yonente bi nee na maanaam sarax dafay fay bàkkaar comme ni sa ndox di fayee safara mu waxaat ci beneen hadis boo xam ne dafa am ku ñëw ci moom ne ko dama bëgg su ma dee rek dem aljanna dégg nga yonente bi ne ko atimi taama wa afsi salaama wa salli binnaas wa naasu niyaam tadxulul jannati bisalaam ko romb nang ko nuyu mhm. te na ngay togg ay ñam diko joxe lol sarax la deug waaw na ngay togg ay ñam diko joxe na ngay lele di joxe mhm. ñam mhm. ngay julli guddi jog guddi di julli donte na ñaar rakala mu ne tadkhulul jannata bi salam di nga dugg janna ci jamm ben problème du am kon legi ñu dem ci manam ngoro bi nga xamne tour bi moy nikah ismu legi ayatul kursi bi dang koy xaj da ngay jël allah la ilaha illa huwa al qayyum mo jitu ci ayatul kursi dang koy jang dang koy jang 111. dégg nga dang koy jang mu ngi nii. allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dang koy jang 111 fois. 111 fois 111 fois. su paré deng nga nga tek ci la ta'khuzuhu sinatun wala no non allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da koy jang 1111. 1111 nga koy jàng. deuxième jour bi nga jël la ta'khuzuhu sinatun wala nawm nga jang ko 2222. troisième jour bi nga jël lahu ma fi samawati wa ma fi al ardi nga jàng ko 3333 man zal ladhi yashfau indahu illa bi iznihi quatrième jour bi nga jàng ko 4444 ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum cinquième jour nga jàng ko 5555 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء موي 6 mooy sixième jour nga def ko 6666 wasia kursiyu samawati wal ard sitteem jour bi nga jàng ko 7777. wala hifzuhuma 8 huitième jour bi nga jàng ko 8888. wa huwa al aliyul azim fa la yem neuvième jour bi nga jàng ko 9999. mom nga koy jàng so li moy li moy tarbiya bi. so paré nga bo mënee nga génnee sarax bey bey bey gat waye bey nak mo ci gën parce que kima ko jangal jangal nga lolu kima jangal secret bi lolu la mhm. wax mhm. mu ne nga génnee bey mhm. bey bi mën na am couleur bu xonk wala wala couleur bu wex bey wala bey bo xamne dafa mix lu wex ak lu xonk boko amul nga génnee ñett kilo guro ben guro bi kilo bi fay wex ben bi fay xonk ben bi dafay nekk digënté digënté xonk ak ak ak wex xigna nak nit mën na laaj ne pourquoi kii di wax euh, béy bi di joxe couleur couleur dafa am solo yonent bi saa salaam dafa préféré woon di sol couleur blanc ak vert yonent bi saa salaam tabaskee na xar moo xam ne xar bi dafa am lu ñuul ci bët yi mhm. am lu ñuul ci tànk yi laqad daxaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi kabshayni aqranayni amlahayni mhm. yanzurani bi sawadin wa yamsiyani bi sawab pourquoi yonent bi tànn tànn couleur boobu mhm. xar boo xam ne dafa am lu ñuul am lu weex am na ñoo xam ne dañuy wax yonent bi benn melo mais li gën a siiw mooy xar bi mu tabaskee dafa am lu ñuul ci bët yi am lu ñuul ci tànk yi mhm. lu tax yenente bi choisir couleur verte ak couleur blanc mhm. y a quelque chose dafa am lu tax kon tarbiya bi mu ngi noonu su paree am na jaaro nag mhm. boo xamante ne nii mun nga koo defar jaaro bi dañ koy musallas lay doon muy neuf cases lay am yaa ngi koy duggee 18 te 18 mooy xayu te xayu dafa bokk ci biir kon ñu wax la ayatul kursi dafa am loo xam ne euh, yaa ngi may dégg dafa am lo xam dafa am lo xamne ne nga moy gàllankoor doom adama fukki mbir ak ñaar moy moy gàllankoor doom adama ku demul ben ci yi moo la gàllankoor ben nit ki setané mën nako top diko jax-jaxal diko indil ay febar diko indil ay problème wala jinne wala rap, de nga mën nako ko mu febar loko wala gàllankoor ko ci walu seyam wala ci walu ligéyam ak lu ñuy wax dëmm am nañu ko gëmul mhm. waaye lu existe la waaw dëmb lu parce que mooy bët bu bon rek mhm. ak gémmiñ bu bon am na ñoo xam ne seen bët yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan na léemu sëtam yi Ousseynou ak Assane mhm. di wax ne a'udhu bikuma dégg nga min kulli aynin lamma wa min kulli shaytanin wahama maa ngi leen di moolul yàlla moolu yàlla ci bépp bët boo xam ne day fëq bët buy fëq mooy bët bu bon dégg nga ak ak bépp làmmiñ boo xam ne dégg nga làmmeñ bu aay la ak noon non képp ku téré dem képp ku demut non moo la gàllankoor. Mhm. non bu la jekkoo daf lay daane ci juróomi kàmb. kàmbam teel a dee dina ci daane nit. kàmbam ñàkk doo amati dara non dina ci daane nit feebar bu kenn mënta faj kaso wala gàcc juróomi kàmb yi non daf ciy daane nit yàlla nañ ci yàlla musal. buur bu bontam bu ko yàlla xiiree ci yow mun na laa indil gàllankoor parce que borom doole la. Mhm. complot nga nekk ak ay nit. xamuloo ndeke ñu ngi lay complot di la fexel su la yàlla dimbalewul complot boobu mun na laa gàllankoor. Mm-hmm. ak iñaan iñaan tam dafa bokk ci bàkkaar bi njëkk mooy yàlla parce que iblis moom la njëkk moo mooy ki njëkk mooy yàlla ci kaw suuf te bàkkaar bi mu njëkk mooy yàlla mooy dafa añaane woon suñ papa Adama moo tax woykatu arab bi wax ne lillaahi darul xasadi ma aadalahu badaa bi saahibihi fa qatalahu mu ne maa naw maa naw kanjaan mu ne kañaan moo ko maandu mu ne balaa moo rey ki mu añaane boppam yow lay njëkk rey ba pare yow miy añaane moo tax bàyyi mu ne bàyyi ñes daan na wax ne mu ne ki añaan toujours dafay foog ne dañ koo tooñ te moom moo tooñ te kañaan moom sa xol dafa mel ni sondeel rek sondeel boo ko taalee dafay jox nit ñi lumière waaye moom lumière bi du ko fekkee mu ngi leeralal nit ñi waaye mu ngi seey loolu mooy kañaan dégg nga moo tax beneen bi làmmiñ bu bon bët bu bon gémmiñ gu bon ak cat lii yëpp dafay gàllankoor doomu adama te aayatal kursi yu mhm. dafa nekk aaya boo xam ne dafay fànq lii yëpp yàlla daf la ciy musal mhm. njëriñ bi ma xam ne moom laa bëgg a joxe ci ayatul kursi mhm. détail par détail baat ayatul kursi ñu mu ngi ko ubbee allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum alif lam mim de astafurlah mu ngi ko ubbee ko la allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum foofu la tàmbalee mhm. ayatul kursi boo calculer alxayu alqayum nga def ci article défini mooy alif ak laam bi alif laam xay kii bi su ko defee daf lay jox deux 236 te 236 moo jàpp kun fayakun jigéen boo xam ne amul doom bu ko bindee boo ko bindalee allahu laa ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nga bindal ko ko 236 muy adadu kun fayakun nga boole ci aaya bi yàlla di wax ne in masala isa inda allahi ka masali aadama xalaqahu min turaabi summa qaala lahu kun fayakun man yàlla maa binde isa comme ni ma bindee aadama yonent yàlla isa ci biiru yaayam laa yebal malaaka rek mu ne mu ëf ne kun fayakun rek doom sosu aaye boobu danga koy bind sept fois boole kook allahu laa ilaha illa hayyul qayyum nga ut reen reeni new garabi new néew na nga dem muy noor ak nawet fekk doo ci gis doom foo ko fekk dooma nga fa dégg nga nga jël ko boo ko boole lii ñu ko jigéen bi xooj ko ak saafara bi naan ko ginnaaw bu mu gisee règle ba pare mhm. insha allah yàlla mun na ko dégg nga may li nga xam ne mooy doom mhm. nga dem ci deuxième kii bi mooy laa taaxuzuhu sinatun wala nawm 1111 soo ubbee miim bi miimu nawm bi lim jë wax ji li muy wax mooy laa taaxuzuhu sinatun wala nawm yàlla du gémmentu te du nelaw dégg nga soo ko sikaree 1111 nga ubbi miim bi dugal fa sa aajo fi ngay utee aajo bi kooku du nelaw du gémmentu fekk fajalu la aajo bi dégg ajo aajo maanaam aajo boobu mhm. borom boromam du du nelaw. te te te aajo boobu fajuwul. loolu loolu mu ngi ci. nga dem ci troisième position bi muy lahu maa fi samawaati wa maa fi ard. kooku da nga koy sikar 777 soo buggee xaalis parce que li mu tekki mooy man yàlla. lépp lu ne ci asamaan ak suuf sama loxo la nekk dégg kon loolu li muy tegtal mooy. soo bëggee am dara da nga koy def 777. 777 moo jàpp Zoumalin. Zoumalin ci arab mooy borom alal soo calculer daf lay jox cent 777. nga dem ci beneen position bi mooy man zal lazi yashfau indahu illa bi izni kenn mënta ràmm ci kanamu yàlla lu du ci ndigalam. kooku boo amee problème ci nguur ku am problème ci nguur wala nga ragal nguur teg la loxo. na nga ko cent 1111 muy laa taxaf. bur mo japp la taxaf ci arab moy bur ragal soko defé inshallah bur allah nga ragal wala nguur bi nga liñ ci ragal yalla dina la ci musal macha allah nga dem ci ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum koku soko sikare même say non buñ lay buñ lay buñ lay fexel li ngay fexel ding ko xam ding ko yek deng nga wala bo bëggee listixaar nga bëgg xam sa mbir dara dang koy sikar 812 mooy moo jàpp xabiiru lima mab xabiiru bi mooy walaa yuxiituuna bi shay'in min ilmihi illa bi ma kooku dafay fàq cat soo koy sikkar 1350 1350 lu mu jàpp moo jàpp wa aynullaahi naziratun ilayna yàlla mu ngi may xool ak bëtam ku yàlla di sàmm ak bëtam dara du la laal waaw yàlla képp ku mu ku mu xippi bëtam di la sàmm dara du la laal léegi nag boo buggee nekk ci place nga ragal ay nit complot la génnee la foofu mhm. na nga sikkar wasi ak kursiyu samaawaati wal ard wasi mooy nguurab yàlla bi dégg nga mooy seesu yàlla bi moo gën a rëy asamaan ak suuf dégg nga nga ko sikar su boobaa yàlla dina la dugal ci biir sees boobu làq la fa. ba nga xam ne lépp lu nekk ci biir asamaan ak suuf du mën ci yow dara da nga koy sikar 903. 903 mooy jàpp saabitu saabituru yàlla bi ñuy wax saabitu mooy aji sax ji. Mhm. fa nga nekk da nga fa sax kenn mënul kenn du la fa mën a déjati incha allah léegi nag nga dem ci walaay uduhu xifzuhuma yàlla day garder asamaan yi. sàmm ko ak suufu juróom-ñaar. Mhm. ak asamaani juróom-ñaar loolu tëw ko moom yàlla yaa ngi koy sikkar 898. Mhm. moo jàpp turu yàlla bu ñuy wax xafiisu mooy aji wattu bi soo ko defee incha allah yàlla dina la aar ci noon dina la aar ci seytaane dina la aar ci lépp. Mhm. léegi nag mu tëjee ko wa huwa al aliyul azim yàlla day mooy aji kawe ji al azim mooy aji màgg ji léegi azim bii soo ko calculé daf lay jox 920. cent 920 nga diviser ko ci 92 mooy Mouhamad fukki Mouhamad moo fa nekk Mouhamad boo ko calculer kas 92 la lay jox bon boo ko bindee 920 Azimu rek mook Zakara ñoo tolloo bi nga xam ne mooy firi ngeen baal ma mooy firi awra góor muy Zakara boo ko bindee ci arab nga nga isaab ko 920 la lay jox Azimu bi 920 la lay jox léegi boo bindee Azimu 920 da ngay bind ayatul kursiw ba ci Azimu nga baamu azimu bi 920 nga ut reenu garab bu ñuy wax keng nga ut reenam nga def ko ci bu soobee yàlla boo koy naan doo tële mukk bépp góor bu koy naan mhm. dégg nga dafay nekk ak kàttanam mhm. ba keroog dégg nga muy génn àddina mhm. kon loolu mooy secret yi nga xam ne macha allah dégg nga moom lañ fi euh, bëggoon a baaxi nit ñi ci ayatal kursi yu euh, ayatal kursi itam soo ko mënee itam def quatre fois ci soxla bo bu soxla bi dafa mhm. soxla bu mag ko def quatre fois. Mhm. wa nga koy multiplier de nga li nga quatre fois. Mhm. wa multiplier quatre fois moy trois trois multiplier quatre fois. macha allah kon daal li nga fi li nga fi jotee andi ci éclaircissement yu am solo yi li ñu sant bu baax mm. kon tey jii itam képp koo xamante ne mi ngi lay bàyyi xel partout dans le monde tey ku la ci woo rek incha allah mm. mun na saafanteeg yow ba nga gën ko jàppale ci ndax te yi nga yi nga fi tudd yëpp dafa ànd ak actualité dafa ànd ak mm. jamono dafa ànd ak dund doomu aadama gi tamit parce que ayatal kursi yi man lépp lu may wax fii loo xam ne lu ma testé la mm-hmm. waaw am na ci ayatal kursi yi boo calculé dafa lay jox 15339 am na ci tur bu mag boo xam ne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu indi na ko muy tur bii dégg nga chaka chachun rachachun tacha rachachun xasaza rachachun xaychun boo ko calculé daf lay jox ayatul kursi yëpp boo ko limee daf lay jox 15 339 dégg nga ayatul kursi yu amul feebar bu mu mënta faj jàngal muy feebaru rab muy feebaru seytaane muy feebaru lépp am na càngatam bu ñuy wax kursi yu kabir boo xamante nii boo ko bindee ba mu mat jàngaro wala seytaane wala rab wala lépp lu mu fekk ci nit dana ko dana ko génne ci doomu aadama. macha allah dégg nga man faj ñaaj sax koo xam ne dafa dafa am xet. Mhm. yaramam dafa am xet maanaam bu bu professeur la. Mhm. bu duggee ci classe bu muy jàngale sax dégg nga xet bi dafay dafay étonné kii. talibé yi ba ñu wala soxnaam sax dafa dem ba nga xam mom dafa tam xet bi da ko da ko déranger mhm. waaye loolu ci ayatul kursi mhm. lañ ko lañ ko lañ ko fajé ma sha Allah gis nga ci ci loolu mhm. ci ayatul kursi bobu diplôme bi li lolu moom mu ngi ni mo la ko jox bi bi li ayatul kursi moo la ko jox ay nit ñoo xam dañ am problème waaw ki